nataal ñaar fukk ak juróom benn yeesu nee leeraayu àdduna ku may topp du dox ci lëndëm waaye dina am leeraayu àdduna bu fekkee nit amul leeraay ci lëndëm lay dox yoonam day lëndëm te du gis fi muy jaar te koo xam ne toppul yéesu seytaane lay topp yéesu mooy leeraay bi waaye seytaane dafa fees ak lëndëm te mënul leeral kenn ku koy topp ci yoonam nit ku koy topp ragal lay doon te du am mbégte mukk ci dundam waaye kuy topp yéesu am na leeraay ndaxte yoonam leer na ci li muy topp yéesu te dina la xamal lépp lu baaxul te dina la dimbale ba nga déddu lu bon yéesu day dox sa kanam bu fekkee doomu yàlla nga te di ko topp ci loolu amoo benn ragal te dangay fees ak mbég